asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ànd ak ñun ci màggal gi TV ak Touba Monde TV tey di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy màggal 2019 ñoo ngi file ci sapeur pompier bu Touba ngir def ab xayma ci li jotoon a jàllagul ci màggal gi ni nga ko xamee mooy pàcc bu nekk ak liggéey bi nga xamee ne moom la amee ci màggal gi. moo xam mooy takk der ci gendarme wala police wala itam ñi nga xam ne yor wàllu sapeur-pompier itam seen liggéey ñu ràññee lool ci màggal gi euh, tey ñoo ngi fii ak euh, capitaine Dieye jaay ngir waxtaan ak moom ci tolluwaayu màggal gi euh, capitaine tam mel ni ñu ngi ci bisu màggal Touba mën na ñoo xam gannaaw bi ñu duggee ci màggal gi ban xayma ngeen defagun ci li jotoon a jàllagun waaw bi ñu duggee ci màggal gi ak léegi ñun ñoo ngi installé wu depuis lundi lundi 14 ba tey le jeudi set li ñu fi amagum mooy ci demande de secours am na ñu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benni appel appel yooyu dafa nekk ay appelu accident walla lakk walla ay malade walla laaj ndox ci accident yi boo leen xoolee tableau bi am nañ ci 114 appel mooy téeméer ak fukk ak ñeenti appel liñ ci am loo xam ni moo ñu ci moo ci métti loolu mooy ne am na fukki nit ak ñaar yoo xam ne dañ ca ñàkk seen bakkan léegi ñi ci ñàkk seen bakkan yëpp fii ci détachement bi fukk ñett la mais benn bi euh, problème courant moo ko indi ci marché Ocass donc li ñu mën a jàpp mooy ne am na fukki nit ak ñett yu ñàkk seen bakkan mais à part ça ñi ci des ay blessé lañu te traité nañ leen ni leen war a traité yóbbu leen ci hôpitaux mu mel ni ñaare ñu bari dañuy am jafe-jafe rawante ni bu jafe-jafe amee pour fi ñu leen évacuer ndax yéen ki jànkonteeg ak jafe-jafe seen diggante ak hôpital yi ak mel noonu. waaw loolu moom amuñu ci jafe-jafe ci màggal gi ñu nekk nii parce que ba fii ñu toll nii amuñu benn mébét boo xam ne am nañ ko ci leen daal moo ci am mooy problème de mobilité parce que dëkk bi dafa xat yenn saa yi pour nga évacuer dafay xaw a yéex. bu fekkee ci kaw autoroute bi aussi da def ay distance yu ba yu sori pour mën a génn autoroute bi yóbbu ci hôpital mais toujours est-il que saa yu leen yóbbu hôpital danañ leen jël amul benn jafe-jafe. bu mmh. ñu xoolee li ko waxee mooy 194 moom ngeen amagoon ci appel mën la gën a féete ci autoroute péage bi wala ci autoroute nationale la gën a ëppee. 186 c'est mais boo xoolee tableau bii nga gis nii mënuñu wax bii la gën a ëppee en tout cas benn axe bi. mooy euh, Diourbel Mbacké moom moo am dix appels pour accident de la circulation voilà